asalaamaaleykum wa rahmatullah leen di nuyu waaw ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziare leen jaajëfal ci coono bi depuis bi affaire bi amee ba léegi ah gis na seen taxawaay kenn ku ci nekk fan ci féetee kuñ gis ak kuñ gis kenn ku nekk yaa nga bi ñëw ci membre yi nga xamante ne ñoom ñooy famille Abdou Faye war nañu ëpp nii ko waxee sànq ñii dañoo nekk ci ñii nekk leen jot a nekkal fii waaw ba tax na ñun tam léegi mën nañoo nekk comme niñ ko ñëpp jëlee rek noonu lañ ko jëlee ndax man mercredi lañ ma woo ne ma jàpp nañ ko dimanche ñu woo ma di barki dem noonu rakam bi mu woo mu woo ma bi ma rakam bi woowee ne ma jàpp nañ ko léegi mercredi yi ñu woo ma encore dama dama da deeram waaw léegi àllarba lañ ma woo rakam bi moom ma woo ne ma jàpp nañ ko dimanche mu dem seeti ko ñu ne ko deeram ma ne ko foo jëlee lool man ko foo jëlee loolu ci nouvelle boobu noonu man ci réseaux sociaux yi laa ko jële man nag man maay paapaam affaire bi nag metti ñu lool dee na dee goo xamante ne nii moom xamuñ ci lan la dee mu metti ñu lool waaw ñu teg ci itam di ko tuumaal naan dafa xaru te ñun loolu mu wax dëgg yàlla doyuñu tuumaal boobu ñuy wax ñu bëgg a jël mbir yëpp jébbal ko yoon bu ko defee moom ci boppam mu def ci ay déclaration yoo xamante ne ñun suñu bopp dinañu xam ne lii kat suñu mbir ñu féetee waaw dinañ ko topp nag di ko saytu ba fañ ci mën a yem waaw ñu ngi woo ñëpp nag dale ko ci kaw président de la république ba ci ñi ci suuf yëpp ñu ngi leen di woo kenn ku ci ne fooñ ci mën a jàppale ak noonu ci mën a jàppale nga jàpp ñu ci ba mbir mi leer affaire yu métti na métti waaye boo xamante ne am ah, féeti woon nañu foo xamante ni mën na luñ ci waxati mënatuñoo wax ba jot ko mënatuñoo wax ba ba am lu toll ab waaw comme ñàkk nañ ko nag ñàkkin boo xamante ne ni amuñ ci lu ñu doy ñu ngi woo ñëpp ñu xool mbir mi buñ am luñ ci doy ndax bu dul moom itam dañ koy def ngir ñeneen itam comme moom boo sam jàll na bu pare ëllëg si bi mën na doon kenn ci ñun ñi kon ñoo ngi def intervention boo xamante ni dala ko ci kaw ba ci suuf yëpp képp koo xamante ne am nga loolu ñu ko mën a dimbalee jàpp ba mbir mi leer daal te lii bañatee am moom wax dëgg yàlla moo ñu gën a loon nga jàppale lañu ñoo ngi di sant di leen gërëm jërëjëf Baye Ali mu ngi tudd Pape Ali Faye ah duñu bàyyi ñëpp présenté ba pare ah gaa yi nag yi waaw ba ba waaw loolu gisoon ngeen déedéet déedéet te ñun gëmuñu loolu tam gëmuñu ne moom da doon def loolu gëmuñu naa affaire boobu noonu la ndax man bés bi ñu ma wooyee ak bés ma wax bi ñu ma waxee ne dee na dafa be amul amatu ma ci beneen nouvelle. jàpp nañ ko lañ ma wax rakam moom ma boo fàllu fay boobu mu doon wax noonu sànq moom moom ma boo ne ma Abdou woote ko ne dañ koo jàpp Abdou moo ko woo ko dañ maa jàpp maa ngi fi commissariat waaw mu woo ma moom fàllu fay rakam boobu noonu ne ma jàpp nañ Abdou ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko déedéet kay mu ne waaw dem lañ ma woo ci boori 11h midi ne ma wàcc na liggéey dama ko doon yóbbul naa ko ndékki ñu ne ma xaaral tuuti mu ne guloo ko gis bu wëññeeku di ñibbi si taal portable am gis ci réseaux sociaux yi ñu ne Abdou Faye dee na lii lañ ci jële mu metti ñu lool ñu bëgg daal lu ñu ci leer loo xamante nii daal bëgg nañ daal ñu wax ñu fi dëgg yi nekk daal mhm. ndax lii bañ a am ndax mu ngi bëgg a bëri comme ni mu ko waxee dañuy def ngir ñeneen ñi nga xamante ñëwagul ndax kenn ci ñun mën naa doon kenn ci ñun bu fi jógee bu leen waaw xaru bi moom gëmuñu ko moom duñ ko mos a nangu tam ñu bëgg mhm. nag yoon def liggéeyam wax ñu dëgg yi salimata waaw démb heure yi ma jógee Diourbel pour ñëw fii nii mënu woon egg foofu noonu turandoom Abdou Faye bi ma ko tuddee sama rakk boobu noonu moom moo dem gis ko mu ne dafa amay gaañu ci bopp bi moom moo dem ba gis ko moom ndax mu ngi fii nii Dakar moo ko rakkam Fallou Faye boobu noonu ñoom ñoo dem ba gis ko mais Abdou Faye turandoom boobu noonu bi mu ba gis ko moom dafa ne am na ay gaañu gaañu fii ci baat bi ci bopp bi nii loolu la mu wax mais rakkam Fallou Faye moom dafa ne man jënd naa léegi ba yóbbu ko ndax ne na tey lañ waroon taxawaaraat ci àllarba ji noonu léegi mu génn ñu ne ko mun loo ko gis bi génnee ci la taal portable am gis ci réseaux sociaux yi ñu ne Abdou Faye dee na mu wëññeekuwaat ñëwaat di leen ci loolu nan la mën a demee ndax man indi naa ko ndékki waxu leen ma dara bu ma taal sama portable gis ñu ne ma dee na loolu nan la mën a demee mu woo ma wax ma ko man ci laa jël oto ñëw heure yi ma egsi fii nag guddi woon na mun woon dem foofu noonu séti woo oui ban ah? ban saar nit la woon waaw ah, ku baax waaw dëgg waaw ñun li ñu xam ci moom ku baax la woon ku bëgg fameem la woon tam waaw koo xamante ne nii ñu daan réeroo xëy na bariwuloon waaw dañ daan bokk korité rek ñoo bokk feete julli ko Jurbel bi mu dellu see Dakar ak léegi bu motee 10 jours tam ci la yem lundi bii passé moo ko def une semaine bi mu jël see Dakar ak léegi Jurbel lañ feetoo ñun ñëpp bokk feet ñun ñëpp fam bi ak fam fàllu fay boobu noonu rakkam ñu ñoo bokk feetee wante ne bële passé noonu ci la ne xëy ne ma pap maa ngi delluwaat Dakar ma ne ko waaw demal fa dikk ak jàmm mu ñëwaat alors ba ñu wooma ne ma jàpp nañ ko dimanche ñu wooma ne ma dee na lii laa jële ci àpp li ma ko wax tam ci réseaux sociaux yi lañ ko jëlee ah.